asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu الله وسلم يا رباه يا ملكي يسره نبليه وارزقني بكن الآن ضيقي أزل عاجلا بالبشر مع مدد حتى أقيم لدين الله أركانه يسر جوعي لتوبة واحمني وقني أذى الورى والتجب لسم إسكانا لك السماء والأراضي والهواء بلا مشارك لرقم شره بنا أجب وسل بتسليم على سندي محمد وتهب لفائف بنا asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi nuyu ñëpp di ko jaarale ci ci ci sëñ Fallu Wilane ñi nga xamante ne moo jataay bi ci ci ndigalam ci la jóge wala bokk maanaam day màggalal baayam di ko ñaanal yàlla na ko suñu boom nangul ñaan yi jot tale ko ca muy loom solo ndax kamil yooyu nga xamante ne lim nañ ko fi am na solo lool am na ku wax ne so benn talibé soxna soxna Faati Dia nee na soxna Faati Dia sëñ Bamba nee na sëñ bi nee na ko laaj na ko ne ne ko jàngal nit nit alxuraan ndax dana am njariñ ci moom mu ne ko ku araf woo jàng bala ngaa noppi mu mu mu àgg ca moom xam nga kon moom kon loolu ci kon kamil yi kon moom lu mu mu gën da bari kon gën ci kon xam naa ginnaaw sëñ Fallu Wilane daa waxoon ne dañoo bëggoon ñëw waxtaan ci ta tasawuf xam naa danañ jéem a tëkk rek loo xamante ne waxtu wi may nañu ko tasawuf ci xam-xam la boo xamante ne ni nga xamante ne diine ji ñi nga xamante ne mooy lislaam ji si sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam indi woon ñetti banqaas la am banqaas bu ne am xam-xam bu koy jàngat banqaas bu jëkk bi mooy liimaan liimaan muy pas-pas nooy fase yàlla noo koy jàppe loola xam-xam bu ñuy wax tawxiid di ko jàngale mu am beneen ci banqaas bu ñu ñuy wax at tey jëmm yi ak at tey yi dox suñu diggante nun jaam ñi loola xam-xam bu ñuy wax fiq di ko jàngat am beneen banqaas bu ñuy wax lexsaan muy sellal sellal ba ku la gis ñeela ñeela ci jikko ñeela ci aw do doxalin loola xam-xam bu ñuy wax tasawuf maana yor ko kon moom ku bëgg kon ca banqaas yooyu benn banqaas da ngay dem ci xam-xam bi nga xamante ne moo ko moo ko jàngale waaye nag ku ku ne xam na ne yonent bi bi be benn salaatu wasalaam bi fi nekk booba benn li li fi nekk booba mooy tudd al fiqhu rek al akbar nga xam ne booba fiqhul akbar al asxar sax booba dikkul nga xam ne moom moom fiqhul akbar mooy at-tawhid asxar mooy maanaam fiq waaye boo fiq rek am bu ne diw faqih la mooy l'islam ji kon peeg na ko maanaam peeg na ko ca kam kattanam waaye jubluwuñ ci rek ne ne nekkat dangay xam fiq bi berte yi na ko imaam Samaxtari waxe woon ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allama mu ne du du firi ku jàng araf yi rek waaye la muy firi mooy ku jàng araf yi ba noppi xam la baat yey firi sëñ Mor Mbacise moo baax ma gis naa leetar bu mu mu yónnee woon sëñ ba ci Madina di ko wax ne ko noonu noonu day ñi ngi yëngatu ci di jàngale arafi alqur'an aka aka wax ji sew na lool moom jàngaliwul alxuraan moom da moom daa bëgg rek nit ñi mokkal ko ku bëgg xam nag alxuraan nag yow da ngay da ngay dem fen kon jànge fa loola kon moom léegi kon araf araf yi kon maanaa ci am na waaye maanaa yi it am kon léegi ko koo xamante ne kon da nga bëgg kon jàng yenn ci banqaas yi kon da da da ngay seeti xam-xam bi bi nga xam ne moo koy jàngat waaye tasawuf dafa am nag ay wute sunuy mbokk ci wahabit yi dañ naan la biddaa la waaw tasawuf bu dee biddaa la ko kon lépp biddaa la ndax jikkoy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne jamonoy sayyiduna Muawiya xéwal yi ba bari na ba ñu bari for di xuus ci adduna ji am mag ñoo xam ne dañoo daal di di dëddu ne kat dañoo bëgg a dem dund ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam da da dund xanaa ku ne xam na ne sëyu du du na Omar daana sol mbub moo xam ne mbub mbubum jaxas bay faal mbub moo xam ne ay sagar yow bari la moom la ñuy saqale te te booba amirul mu'minin la daana daan da wax naan man day du ma lekk ñam wu am ñaari rënd ndax sama soppe bi nee na fi ba ba jóge fi fi lekk ko te kat mooy mooy ki nga xam ne man nga sii nun nu maanaam l'islam mi ngi ci loxoom waaye moom lu naqari lay lekk xam nga loolu loolu sunu sunu ku baax ka jàmbar ji it sëñ bu mag bi bay xaali sëy nee na ma sëñ Basiiru nee na nee na sëñ Basiiru nee na ko si sëñ Tuubaa kalamba googu su ci masaa jëfandikoo ba noppi daana ma woo jox ma ko nee na laaxub jar lay doon jar laaxub jar xam nga laaxub jar moom moom biñ ko biñ ko sugaroon sax yaakaar naa doon du du du neex nee na ko it bu bu jot a fekkee baramam yu sell yi su ma dikkee du ma xam fan la ko tegoon kon moom moom dund gu dund gu métti googu dund goo xamante ne da da ngay dëddu adduna maanaam dëddu adduna ji nag du firi ñàkk ko waaye mooy sa xol nga yërëb ko ci adduna nga xam ne lépp looy def jëmmim yàlla ji rek la yooyu buñ ko boolee jikko yooyu al isaar yàlla yàlla su sa sa moroom gëna la sa bopp yàlla gëna la sa lépp ndax anta muridun wa fi su ma fi kayraada fi lam tur shay'an fa anta muridu da ngay bàyyi képp nammeel gudul namm sa borom man lam yuri man lam yu man lam yuri shay'an soit mawlaahu yasir lahu wa xayruhu awlaahu ku bëggul ku nammut lu may borom dana dana caag sun borom jox ko xewalam kon moom maanaam jikko yu yu sell yooyu nga xam ne fiq du ko wax tawxiid du ko wax jikko yooyu nag moom la gaa yi def ab fekk nag tudde ko tasawuf tasawuf moom baat bi sax dañ naan baat bi day xamuñu ko ci sunna waaye fiqi noonu fiqi fiqi xamuñu ko ci ci sunna fiq bañ xamoon ci sunna mooy bi firi ak dégg yëpp xawun mooy danañ dégg diggu xel fiq bii nag moom ak ab xam-xam la bu tudd fiq waaw xam-xam bu bu ñu taxañ borom xam-xam yi tudde ko fiq la bu dee tawxiid it maanaa ji ñuy wax jubluwuñ ca maanaa jalxwaan doon wax ndax jooje moom amul wuute nun ñëpp ba ko bokk waaye ji nag moom da nga da nga naan kat ab chien yi nga ahlu ab sunni yi nga ab ashari yi nga matridi yi nga lu la ne gës yi di nga loola ko kon moom xam-xam la buñ ko tudde waaye bokkatu xam-xam ba nga xamante ne moo doon lislaam jëpp muy tawxiid ja muy wéetal su sun boom ca na ko sun boom bëggee kon tasawuf moomu xam nañu ñuy wax sax naan moom moom de mi baat bi mi ngi jóge ci soo foos soo foos ci la ci latin mi ngi firi maanaam xikma maanaam xarañteef waaye yee am na benn ab orientaliste bu mag ab almaala mi ngi tudd noonu dëkkin danekat loolu wér ndax soo foos bu doon moom la soo fiyaa su ko arab de bind mi ngi koy bind bi siin kon kon léegi kon tasawuf kon siin lay doon waaye du nekk kon saat mu ne ne kon loolu ñu bëgg a wax ne kat tasawuf mi ngi jóge ci maan na la ci latin wala ci grec yi wérul am na ñuy wax ne tasawuf mi ngi jóge ci maanaa maanaa ci waa sarq fu mel ne diine ju ju ñuy wax bouddhisme waaye kooka day wax naan Buddha day wax naan yàlla maanaa mu ne su koo xam amul jëmm léegi nag koo xam ne da nga bëgg a am yàlla da ngay jeex ci ci moom jeex ci ci moom nga alfana u fillahi mi ngi ko tuddee nirwana waaye ku ne xam ne it maanaam loola fekkoon ne nañ ko ci ci lislaam maanaam lislaam amoon na loolu maanaam jeex ci ci suñu borom ndax saxaaba yi ba ñu ànd ak yonent bi ay alayhi salaatu wa salaam di di xare ji jeex ci sopp fu yàlla bëgg ko moo taxoon ñu mën a jaay seen tey jënd ëllëg kon moom maanaam ñu ñu bëgg a wax ne tasawuf moom gan la dëkkul ci ci lislaam tubaab yi rek la tubaab yi nga xam ne nanguwuñu benn man xabam nanguwuñu lenn lu baax benn valeur bu am solo ñu ne lislaam moom moom loola kon bu bu ñu xasee kon d'accord ci ne kon kat maanaam lislaam ci xamoon na ko sunna laam du sunna kon nga xam ne la sëkk sax kon moom du du du ni ko sunna tawhid bi noonu waaye kon sunna bu buñ ko waxee baat bi li mu war a firi mooy lépp loo xamante ne wuute wut ak alquran al alxuraan ji moom ñun ñëpp d'accord nañ ne alxuraan ji moom amul wàññi amul yokku la ñuy tuddee nag xadis am na werante moom boo demee ca siyan ya seen téere yi gëm ne mooy xadis bu jógee ci yonte bi Ibrahima alayhi salaatu wa salaam soo demee mais Arabie bi Saoudite nanguwuñ Arabie bi Saoudite la ñuy wax ne ci yonte bi alayhi salaatu wa salaam la jógee la ca ëpp soo demee ca siyan ya bu bu bu jógewul ca seen kilifa ya nanguwuñ ko. kon moom man na xadis kon moom am na kon problème man na xadis kon léegi kon du ne mooy sunna waaye sunna mooy loo xam ne alxuraan tudd na ko wala mu junj ko wala mu wér ci ne fu mu mën di jógee ci ne jonte baay caay sadu wasalaam nee woon na nangam addu woon na ci nangam atte saxal mbaa moo ma mbaa mu dindi lu mu ca mën di doon loola kon dëppoog loola mooy sunna waaye li li li gars yi di wax léegi fexe ba di gàttal mbubb naan sunna laaj sol lu weex sunna laaj yooyu yëpp moom du du du waxi dara da nga dégg sax ñu ñu ñu ñu bu ñu naan la weex day ñooy la sunna la ndax ci ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne woon na na ngeen fonk lu weex ba na ngeen koy muure seeni seeni néew waaye ñu xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam jëgoowutoon di sol lu weex rek daana sol lu wert lu ñuul lu xonq sol na lu ne sëñ bu mag bi ci boppam moom mbub mi nga xam ne moom la mujj sol ci suñuy bët mbub mbub mu ñuul la kon moom kon maanaam kon léegi sol lu weex lu lu lu ñuul moom amul moom ci benn njariñ la am njariñ kay mooy xol ba leer dugg na ca na ca am déet kon moom maanaam kon léegi gi tasawuf moom kon leer na ne kon ci jikko yi ci cent ci ay sadu salaam ak saxaaba ya lañ doon dund seen valeur yooyee moom lañ dajale def ko ba mu muy benn na xam-xam nit ñi mag ñi takk ko bind ko nekkat doxin wii de moom la mag ñi ñu baax ña doxe woon loola ku ko doxe ku nekk nag da nga da nga mujj xam dara loola nag mooy ak tasawuf loola bu ñu ñëwee nag ba alqarnu asaani li hijri yi danañ fa fekk ay kàngam ku mel ne xasanul basri moom da daje woon na ak sayyiduna aliyu nga xamante ne moom ci xarnul awal ca lay ne waaye xarnu saani bi ñu dikk fekk fi ku mag muy imaam mu Junaydi Junaydi bokk na ci kàngam yi nga xam ne ñoo gën a bind xam-xam bi gën koo dajale gën koo leeral waaye nag imaam mu Junaydi ab sëriñam mooy sëriñ sëqti sëriñ sëqti yi nijaay Junaydi te mooy Maxrufun al-Karaxi yi mooy ab sëriñam kon ñoom maanaam léegi foofu nag la la xam-xam bi tàmbalee leer nga xamante ne da nga naan Junaydi siri sëqati yi Maxrufun al al ci Karaxi yi daal di ne daal di ne Maalik kumnu dinaar ah caabit al al-Ajmi daal di nag wax ne ne Xasanul Basri wax te yudu naa li yu muy silsila boo xamante ne day dem ba cent daay cay sadu salaam kon moom maanaam jamono jooju nga xamante ne ci la junne di nekkoon dañ fa fekkaat keneen al imaamun nuuri ak ak ku ñuy wax ak Shibli Shibli ak Abu Hasim as-Sufi Abu Hasim moom dañuy ci wax ne moom lañ moom lañ njëkk a tudde ab suufiyanke da da da nga fa fekk suñu mbir ma Cheikh Ibrahim ibnu Adham nga xam ne sañ sonay bu ca téeram ba nee na kuñ ko bind ci bàmmeelam kenn du ko mbugal Ibrahima ibnu Adham moomee kàngam la wër na fu nekk daje naag ñetti téeméeri sëriñ ñetti téeméeri sëriñ am na ko kon kon moom booba kon li li ñuy wax booba ak sëriñ booba nii nga xam ne léegi ak tariixa am na booba tariixa juddoogul ndax dañuy wax ne tariixa mi ngi juddoo ci xalaaj Mansuurum nga xalaaj kooku ci ci la tariixa juddoo nii nga xam ne ab sëriñ bu am ay dongo yoo xamante ne dañuy ne ci moom rek waaye bu bu jëkkoon da ngay dem ci ab sëriñ naan ko ba mu jeex nga dem feneen kon moom maanaam jamonoy nag mën mën suurum nga xalaat nga xam ne mën suurum nga xalaat moom it jamononte ne ak sibli jamononte na ak junay bi moom da tàngoor wa dafa metti woon lool nga xamante ne daana wax ay xam-xam yoo xamante ne xëjul ci bopp mais ñu mas naa fekk imaamul Junayd mu toog di waxtaan mu ne ko Junayd te ngaa wax li nga xam imaamul Junayd di neen tëju na weer nga xamante ne kon ne ne xamee na ne maanaam ñu baax ñi la ñuy xam dëgg buñ kooxoon lay ibnu taymi rahimahullahu waxoon ibnul xayim aljawsi yi dongam ba ne ne ko li li may xam ci yéen su ma ko ko doon wax du du yéen man mën a nekk nekk man kon ño- kon ñoom li ñuy li ñuy xam ci li nga xamante ne mooy rot ci xolu nit ci ay ay aafaat ay gàkk loolu moom buñ la doon wax li ñu xam ci yow maanaa léegi doo mën a nekk ak ñoom kon imam mu mu mu mu junne di mooy ki nga xamante ne xam-xam bi maanaa ci la gën a leere moo ko moo ko leeral ba ba nga xamante ne maanaa ginnaawam ku ku dikkati ca lam doon bind wala lam doon wax ci yow misaal mas nañ koo fekk ci Bagdad ci marché ba mu yor kurus benn waaye xam naa bu mën a wax rek naa ko ah yow sëñ bi yow da nga yor kurus mu ne ko mu ne ko ah kurus gi day loo xamante ne ci moom lañu àgg ci suñu borom duñ ko bàyyi luñu àgg ci yàlla jumtukaay boo xam ne ci lañu àgg ci ci ci suñu borom duñ ko duñ ko bàyyi maanaam kon moom li li muy firi kon mooy kurus kat jumtukaay la waaye nag du xaaya maanaam du loo xamante ne mooy yëf ya waaye jumtukaay la imam mu junay di maanaam bu ñëwee sëñ Tuubaa ci ay référence am la ko boole lool nga xamante ne da da koo fonk lool jàpp ko nga xamante ne maanaam léegi ni imamul junay di wo waxe woon ne maanaam képp koo xamante ne da ngeen koo gis muy naaw ci kaw jaww ji di wàcc ci di dox ci ci ci ci kaw ndox mi na ngeen ko xaar ca ndigal ak tere maanaam su dee mën naa bàyyi tere yi wali yu kaabile googu su dee mënu koo bàyyi nag du kenn loola sëñ Tuubaa it moom la saxal bind ko wax ne kat maanaam karaamatul wali an laa yaqtiya fi zahirin wa batin in onsiya kon moom maanaam tasawuf kon moom boo ci boo ci ci nekkee du tax nga am droit mooy yàlla waaye nag tasawuf nag am nag problème lool moo tax sëñ bi waxoon ne wa man tajarrada li xidmatil jalil xabla taxallumin fa xumrun la nabil maanaam koo xam ne da ngaa jóg ba nga bëgg a liggéeyal sun borom te jàngoo yoon wa nee na kooko dof la xelliwul xam nga lëggi-lëggi géej ne war na wa man bi mah mahi tasawufi nasal bi xayri musahabati sayxin xat kamul fa innahu yafuudu fi bahri rada wala yaji'u minhu shay'un abada maanaam lëgg-lëgg géej xamoo ndox doon ab bool bool dem ca ndox ma rek gis maanaa la maanaa ci waa Ndakaaru di dugg ci ci lëgg-lëgg yi boo ca duggee day boo yeex boo yeexee soo àndut ak ku la dimbale da nga do génn loola mooy kon tasawuf moom it la la Sëñ Tuubaa wax naan wa bax dawoo soo jàngee tawxiid ba xam yàlla mooy kan ba bu bu la yàlla boo demoon ba si seytaane nax la naa la la ma la daganaloon day araam la ma la araamaloon day daganal naa la ko Cheikh Abdou Khadir Jilaani mas nay dox ba jàgg seytaane daal di koy feeñu ne ne ko day maay sa borom ne ko day la la ma la daganaloon lépp la la la araamaloon lépp daganal naa la ko mu mu mu mu mu mu mu saaga ko Cheikh Abdou Khadir Jilaani ne ni saaga ko daal dina ko fen nga mu ne ko ah ma ci maanaa leer nga soog pëliku maanaa maanaa saxar mu ne ko ah fii nga toll day mbooloo ci wàllu yu toll nañ fi ma ma ma yàqal leen maanaa ci xam nga suñu borom moom bañ laajee junni di bañ bañ laajee Cheikh Abdou Khadir Jilaani noo xam ne loolu mu ne suñu borom la mu araamaloon démb ba tey noonu la mel suñu borom lu ko sax araamal moom jeex na maanaam mu ëmmatul lu may lu may daganaatal ci dara kon moo tax Sëñ Tuubaa ne kon wa bax de soo jàngee fiq ba xam ne kat yàlla daganal la nangam araamal la nangam te du du ko daganal la ma la mu araamaloon du du ko araamal la mu daganaloon nga nga ci nga nga jàng tawxiid ba xam ne laysa kamislihi shay'un suñu borom kat doonte ne ne samiul basiir la it waaye bokkut ak noonu dara déggam nga du su ndigg suñu borom du ne day bàyyi ba kaas bi ne kalang mu dikku déet suñu borom diggu kaas ba ne kalang mooy su kaas ba waaye moom su du ne suñu borom day bàyyi ba kaas ba rek kalag mu soog a dégg loola loola noonu la maanaam noonu ñooy dégg déggin boo xamante ne day jeexitaloo ca ca jeexit ja suñu bopp nag moom ak dégg mooy jeexital ci mbir mi su borom bi suñ borom saa bu noppee génde boobu dara loola feeñ waaye nekkul ne suñ suñ suñ suñ borom nangam day am ba natt bu xam ko déedéet xam-xamam bay amal loola kon nag kon nag soo soo jàngee loola soo fi tasawuf ndikk tasawuf ci nga jàng ko xam ne kat la suñu waxoon ne subhanahu man idrakuhul mamalu an huda waxtuhul kam kamalu su suñ borom soo xuusi ci géej gi tasawuf yi ba gis dara mu naa la maa yàlla xamal ne la na na la leer ne du du moom suñu borom mënee su ko pegg loo loola tasawuf moo la la koy leeral xamal ne la kat lëgg-lëgg yi da da da da nga dem ba ci yàgg seytaane di la nax moo moo tax sax ñu wax naan gént gént gis yàlla maanaam ay na xam na ci da ngaa gént gis yàlla maanaam waaw yow de de yow li nga julli bari na lool kon de moom maanaam suba mën ngaa ba ba bay julli da lay nax de du moom maanaam nag gént gis wàllu yiw moo gën a neenu maanaam gént gis yàlla yàlla moom ay na xam ne ci loolu maanaam seytaane ci ci boppam day raxasu ci booba kon soo xas see xam loola nga xamante ne xam nga ne kat suufiyanke yi ñoom ñii lañ jàppee woon yàlla Cheikh Abul Wahab Cheikh yi daa ma sa dégg ñu ñu ñu ne ko matt ba de am na ca waaye joo xam ne nee na daf fa gis yàlla mu ne yóbbu bëri ma yóbbu ko mu xool mu ne ah moom kat yàlla daa sënkat ci xol bi xol bi sënkat ci xol bi duma yàlla daa sënkat ci róogi róogi foog sënkat ci xol bi xol bi sënkat ci bët yi mu ne gis naa yàlla xam nga xam nga sunu moom néewul image du du matière ba nga mën a jàkkaarloo moom di ko gis ko kon moom léegi yow soo xas te xam loola lépp lu la loo dajeeg moom ci ci woon wi mun naa la ma yàlla dalay nax kon nag si bi ne wa baax de woo soo xasee peeg yooyu ba noppi nga xam ne nga xam nga atay jëmm ci taw xita ci sëq ak ci tasawuf nag mu ne yasuluxu nag in raamal musul su boobaa nag waa ji mën naa sóobu yoon wa waaye nag ala yaday man lam yooyu yaday yaxil usul ci day sóobu ji koo xam ne maanaam loolu mu jàngoon moom lay tari moom dama ne da nga war a jàng sëq ba boo gisee ab sëriñ muy julli di jàng français nga xamante ne waxatul jullitul moom li moom kenn du ko wax ci français ma xam-xam boobu ngay xam ne sëñ bi julleetul nga dem yow julli jëw loola moom nga war a def lépp nga xamante ne tey ci murit ji bu bu la ab sëñ ñëwoon kaay jëndali ma sàngara nga ne ko ah sàngara de moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane woon ka yenu sàngara sax rek dafa haram yenu ko haram na jënd ko haram na lépp lépp fa haram kon yow doo ko jëndi doo ko jëndali ndax yow xam nga si si si si ne woon na la boo baax de woo bala ngaa nekk ci ron ci ginnaaw kenn da ngay dem ba xam la muy tari ba muy tari su gagee nga xam ne negag na su juumee nga xam ne juum na maanaam léegi Sëñ Tuubaa daa bëgg ci ngay àndal nga ngeen ànd xam yoon wax sëñ Mbàkke Madina ñu tuum sëñ Mbàkke sëñ Cheikh ngay defaat ma daaw ma si tukki ànd ak benn mbokk mu sant Silla pa sénatur wa Cheikh Moustapha woo ko ne ko Cheikh soo àndee koo xam ne gënal koo xam yoon wa lu lu war ci ci yoon wa mooy teg mu ne ko xanaa ne coow rek coow maanaam sëriñ bi ak donga bi dañoo war a bokk lu ñu xam ba bu sëriñ bi tari su gagee donga bi man ko gàgganti loola kon sëriñ bi kon nekkat kon day sóobu bu dee bëgg naa sóobu ci koo xam ne maanaam léegi na sa xalut man la yore yëxil usul ñett yooyu taw it fekk xasuuf sëriñ bi li nga xam ne moo lay tërbiya nay mu waxi dëgg wax mu waxi dëgg koo xam ne dafa wóolu yàlla ba nay koo xam ne day jëfandikoo farata yi jëmmam yi nay koo xamante ne soofiyanke yi niñ ko niñ li ñu li ñu teggin yëpp da koy def Cheikh Abou Bakrin Tumna kenn ci kenn xam naa tur wa mën naa mu ñëw mooy moo mooy doon ci xaaj junni di ba daa dégg ak kilifa gu mooy Abu Yasin al-Bustami daa dégg ak kilifa gu mag mu koy seeti ñu ne ko daal moom daal xot bu bu bu la xam naa mu dem di di ko seeti ba mu demee ba jub ko waaja jublu peng ko tifli mu ne ah mu dëpp daal ne koo xam ne xamul lenn ci teggin nii di daal yi satu wa salaam kooku kooku ku man du ma ko wóolu ci secret yi mag ñi xam nga xam nga koo xamante ne yow maanaam maanaam teggee ne bañ a tifi jëppeen ko saxama ko ko kon moom mësul ëpp sëriñ ëpp sëriñ dëgg mooy koo xamante ne jikko yi yéntu bi alayhi salaatu wasalaam da koy mbubboo xemtu lay kattan li li ñu waxoon ne tasawuf mooy ci nga mbubboo jikko yi suñu borom yi jikkoom yi kenn su lay kattan xam ne ke- ke- kenn ku ne ci ah suufiyanke yi day day jéem a dund yonti suñu borom imaamul xasaali nee na a taxalluqu bi bi bi asmaa illahi alxusna mooy kenn ku nekk jaam li asmaa yi wala sifaat yi li yey ci jaam bi xam ne yey yey na seen diggante ma jaam bi sañ na koo def sëñ na caaroo yu suñu borom misaal buñ ne almumitu yàlla kat day ree waaye nag kon yow buñ la indiloon re ku rey nit ba noppi ne la rey ko ñu àtte ko ba nga war ko rey waroo koo néeg a rey ndax ndax jikko yàlla ja yàlla néegut a rey waaye nag waxuñu la nag nga dem rey xarum jàmbur soo loolu moom dóoru yàlla roy yàlla mooy suñu borom ñàkk a néeg ci dëgg doxe dëgg ñàkk caay néeg loolu la la yow ko ci kon yow soo soo koy roy ca mumitu mooy loolu waaye nag soo ko roy ci mumitu teg Sénégal man sunu borom ginnaaw moom moom lépp lu ko neex def waaye yow ab jaam nga yow yow li yàlla ci ci sa bopp ci maanaam melokaanu sunu borom woowee loolu la moom moom ngay doxe kon sa sa wuf jooju nga xamante ne kon faw kon ginnaaw bi di nga ñett yooyu bu la leeree nag ba noppi nag nga ànd ak koo xamante ne maanaam nasaxalul loola waaye nag maanaam bu dee ci suñ murit gi moom am na yetti yëf am na boog ay yëf yu bokkul man ngaa jébbalu ci sa sëriñ boo xam ne mat na sëriñ sa sama benn rakk daa daa laaj sëñ Abibu Mbakke li ma ne ko kan mooy yé- yéegale ca borom bi ci ci yoon wi mu ne ko ah laaj boobu de laajoon naa ko sëñ daam Abdourahmane mu ne ko képp koo xam ne da ngaa liggéey ci ci yoon wi ba ñu war laa yéegale sëñ bi moo lay yéegale sëñ bu mag bi kon moom yow man man ngaa nekk ci ron koo xamante ne sax du du kaamil waaye nag yow yaa ngi dox soo dee soo dee te dee dox te dëggal te am himma xam nga citoyen ne woon na tëbb ci ku kuy dund moo gën a yomb tëbb ci ku ku fi nekkul ci naka noonu it tëbb ci koo xam ne kaamil la bu bu ne tey sa sa njaax ma ci lay xool jëmm ji rek daray dolli maanaam kooku xool ko dong mu mu mu dolli la daa gën a yow yomb xool ma ngir dolli ko sa njaax ma ma ci lay jëmm ji dalay yéegal moom xool ko rek dalay dolli loola loolu nag mooy différence bi diggante ki mat sëkk ak ki nga xam ne moom matul yoon wi mën ngaa jëm jëbbalu ci ko ko koo xam ne matul waaye da da ngaa jëbbalu yow ngir bëgg a doon am mooy waaye nag soo bëggee nag xuus nag ci géej ji leer yàlla yi nag bëgg a branché lew nag da ngay defaat meneen pexe danaa wax ne kon su boobaa mën ngaa seet nag koo xamante ne jottu nga ne kàngam la wala boog nga dem ci koo yaakaar ne ay bëtam neex na nga ne ko dama bëgg ci ci nga seetal ma ab sëriñ mu wutal la kooka lu lu mu ci man di doon kon yow ma ma ci man ngaa jéem a wut kon pexe mooy kooy tëbboo waaye nag sa sëriñ bi moom day day sëriñoo aada mooy sëriñ bi bi nga xam ne bu ñu bu bu ñu la tuddee tuddu yoon wi loola kon ci kon yow mooy sëriñ bi bi nga xam ne moo lay jokkale ak yoon wi waaye nag sëriñ bi nga xam ne moo lay bu jokkale ak réseau bu mag ba ba nag moom keneen la xam nga xam nga seexu tarbiya am na seexu tarixi am na tasfiya am na koo xam ne daa bëgg a jokku ca yëf ya xam nga fi ñu toll xasida yi ñu ngi koy jàng rek xasida yi day fi ñu toll commencé na am is na xaar xam nga am na is na am suñu suñu waaj digal na ñëpp leen jàng leen xasida alxuraan noonu alxuraan kullu muridin bi bi yelusu fal yu dem tilaawatan ni xëy di gën a xaru sim yàlla ko digle Sëñ Tuubaa feddale ko waaye Sëñ Tuubaa newoon na maam Cerno Birahim ba nga ko diglee digale ne ko day jaay jàng alxuraan ne ko nag bi bi ma la ko digalee nag li nga ci am dana wuuteeg ba ma la ko digale gut branchement boobu texte bi kon moom maanaa xasida yi ci boppam daanaa ko wax jamono Sëñ Saaliw ma ne si nit ñi dañ jaawaroon na laaj ndigal si loolu sëñ Cheikh ma ma mi ngi nii man ngaa seet xasida koo xam ne yow kat da ngaa dalaa neex lool nga dem ne ko suñu biir daa bëggoon nga jox ma ndigal ci xasida sàngam wala nga nga ci nga dem bàyyi ko sa bopp ne ko man de dama bëggoon ku ma sarax jox ma ndigal ci xasida yi loola maanaam nag walaa yu walaa yu walaa yu nabbi uka mislu xabiir loola bokkul de buñ la xasee jox ndigal li dox bi ngay dox dana wuute ak bañ la joxagul ndigal li waaye waaye nag loolu moom ñu bari ci mbooloo mi daa mel ne ci xamuñu loolu dañu yaakaar ne rek xasida yi moom da ngay jël rek mi nga mi nga mel ne ku demoon di jëli wér bi wérdul maxuus ci ñetti façon yooyu mu am nga nga dem jëndi ko rek ca sëñ loom jaaykatu téere daal di ñëw nag toog di wér rek ah laa tafaloo cheyan bi xayri idn fal idn shartun fii xabooli cheun sëñ diwaa ne bul def dara ci tasawuf lu may ne da nga cee am ndigal maanaam si si siñ saali yu ci boppam nee woon na sëñ Mat Lamin Jóob ak dëggani yu moo ko joxoon wérdu wi nga xam ne ba ba ba ba doon rek wérdu wi kon ma ma koo jëfandikoo ci rudul is ni kon si saali wax na kon ma man koo jëfandikoo ci kon moom waaye moom moom sax day daa wuti woon ndigal ku ne si si sëñ bee ma jox ndigal lii jox ndigalul jëfe gi ak ndigalul joxe gi loolu loolu it wuute na lool gaa yu bari nag maanaam wird wi fi ñu toll danaa wax ne jamono ji kuy wut wird wi moom ba ba boo nga laaj bu baax ba ba demee ci ab sëriñ boo xam ne da ngaa bëgg mu jox la wird wi nga ne waa sëriñ bi day ndax yow amoon nga digal ci wird wi bu bu ne la waaw nga ne ko kala ci jox ndigal ci jëfe gi ndax joxoon na la ndigal ci joxe gi bu ne la waaw nga toog gara ga jël wird wane ci moom lu am solo de damay wax ne alaxira kenn du ko kenn du ko duggee de defe naa rek defe naa defe naa mën naa baax mën na waaye defe naa it mën naa bon de ak alaxira moom du wér cëng dafa yóbbu moom moom moom yow sëñ bi wax ko loolu du du ñàkk ki teggin waaye da ngaa bëgg a wérlu xam nga bu jikkoon mag ñi dañ la daa bindal ab kayit sil si la ne la mën day jiw moo ma jox wedd bi jiwoo ko ko jox ba ci yent bi alayhi salaatu wa salaam kon léegi yow mën ngaa laaj sëñ bi rek ci ci ne ko ku la jox wedd bi mu ne diw ndax jo ndax dañ ci am ndigalul jëfe ko waaw ndax dañ ci am ndigalul joxe ko waaw su boobaa baa kon su la ko joxee kon yow balance le woo nga mi ngi mel ne danaa tabax sa kër ba ba ba mbaax nga takk say fiil bi ba ba ba mu njëkk waaye balance le nga dem fekk nag photo boo xam ne daggoon na ca seele bu bu yàgg nga takk ca sa sa fiil ndax da nga am franc yaakaar naa doo ko am xaar de kon moom la si waa waxoon naan ci wanta wasala bi waa seen wasal wasal boo ci wanta wasala de de de de ak seen wasal ku jokk ci ci ko àgg àgg ku jokk ci koo xam ne dafa dog dog na loolu koy maanaa fiqu tariqa tariqa bi wala murid gi dafa am fiq mat naa jàng xam ko maanaa kon yow soo demee bay jël wird bi na nga laaj loola sëñ bi wax la ku mel ne sëñ Cheikh Matiley moom doo ko laaj loola sëñ Cheikh Matiley soo demee ne ko jox ma ci wér du maaxoos moom sëñ bi moom moom moom moom ginnaaw moom réseau bu bi moo taxaw ci ci bunt bi léegi moom jël ko nee ne ko jox ma rek wér bi yu am solo la yoo xamante ne maanaam ki nga xamante ne daa bëgg a sóobu yoon wi xam nga yoon wi am na ay façon yu tërbiya sëñ Tuubaa ne woon na tarbiyatu bil xaal amoon na ak bil xaal am na bil xaal am ak bil askar tarbiyatu bil xaal mooy sëriñ bu ma sëriñ sëñ Cheikh Mati lay ci nga saqoog moom do do doon naa fa waxtaan ak ay gaay yu ne ci kër ga may leen su ngeen bëggee jariñu nag lépp lu leen sëñ bi digal da ngeen di xam ne bokkut ak lu mu leen digal loo xam ne lu mu digal boo bokkut ak lu mu leen digalul te lépp lu ngeen koy liggéeyal na ngeen ca fas dara fas dara sëñ Tuubaa ma dénkaan na ko sëñ Fallu ak Cheikh Moustapha ak sëñ Moussa ni leen bu leen fàttee fas ci dara lépp lu ngeen dugg na ngeen da ngeen ca fas yéene nangam ndax yàlla moom la ngeen fas dong la séq ak yow kon moom kon moom maanaa kon kon bi nga nekkee ak sëñ bi muy sëñ Seydul mu mu Muxtaar xaal bi di nga xamante ne boo ko dee dee xool mooy fàttali borom bi dina yéegal kéem tolluwaay nag sa himma himma nag mooy lan te sëñ Tuubaa ma mas naa woote njëriñam sëñ Malick Ndiaye aw fële sëñ Mbay Taara aw fële ñu woo ñëpp ñëw mbooloo mi ñëw sëñ bi bii génn daal di nuyoo ñetti yoon daal daal di ne sëñ Maam Samba ñëpp fu ñëw nañu ah sëñ Maam Samba ne ko jóp fu ñëw nañu jóp mooy ñëpp mooy sëñ bi beneen nag waaw jóp rek ka mën a ñëw jóp daal di ne yitte yitte bismillah yitte nag mooy lan li tax sëñ Tuubaa di woote xaaja guddi ñu ñëw mu ne yitte rek yitte dong yitte mooy ci Abdu Xaadir Jilaani nee na yitte mooy sa xol bi adduna ak alaxira du du du du ci dox maanaam sa xol bi du du ci bëgg adduna doo ci bëgg alaxira sëñ Basiru nee na ci mu ne ba Xaadim sëñ Tuubaa daa amoon ay donga yoo xam ne dañoo dañoo yónni woon ci moom ne ko dañoo bëggoon nga defal ñu intervention ci loi bi ndax daal ceddo yaa ngi ñuy son lool sëñ bi daal di wax ndaw la ne ko soo soo demee ne leen ku ànd ak man ngir adduna ànduma ak moom ku ku ànd ak man ngir alaxira ànduma ak moom ku ànd ak man ngir yàlla bismillah foofu loolu sura ñu bari ci nun bu ñu àndut ak sëñ bi ngir adduna ngir adduna ju neex ji rek xéwal yaa ngi wala ngaan ñii ñi nga ànd ak moom ngir ajjana waaye loolu daawee si diwaan nee na ànduma ci ànd ak man ngir ajjana loolu lu sew sew la bu am solo Sëñ Tuubaa ki ki ma àndal mooy ki ànd ak moom ngir jëmmi yàlla benn waaye ñëw na sama kër di ma laaj naa ma waaw ma ma may waxee nii mu naa ma ah waaw kon nag nun xëddee ji di ñuy joxe nag ma ne ko waaw nun ma ne ko nun de sun maam yeet dañoo newoon ci lu baax ba dégg ne sëñ Bamba mooy baax ñu dem nuñ fa sëñ Bamba ngir bëggoon sëñ Bamba wala ñu jikko lañ koy jox nag sopp ku ñu ko soppa tax ñu ko koy jox waaye joxuñu ko ko ngir dara xam nga lu lu am solo la ba bala la la la ci la ngaa waru am na ko xam nga xam ne dañaa tubaay leen laab di muy din sarixin la moo yaakaar ne yaakaar ne joxe addi ji day tax a joxe déedéet ki nga sopp ngay moom da nga koy jox ngir bëgg mu sopp la kepp rek di waaye moom addee ji moom jëriñu dara waaw sëñ bi la laaj ko kenn ku man jox ak ku mënul moo xam da ngaa sopp sëñ Tuubaa di ko jox ngir bëgg sëñ Tuubaa sopp la sëñ Isaa Jenn sëñ Tuubaa su nee na daana wëri ci kër yi gi bu rombee dara loola ne ko bul fàtte Isaa ci liggéey bi lu ko waral sëñ Isaa fa indi loola bu rombee ak gaal gaal gi ne ko ah bul fàtte te Isaa ci liggéey bi loolu la xaddiyee di jëriñ te mu mu mu way jur nee woon na ma maanaam murid saadix mooy koo xamante ne su ab sëriñam geesoo gis ko mbaa mu gis lu bokk ci ci moom maanaam loo xamante ne sëñ bi soo xoolee xam dem ci yow loola mooy njëriñ la maanaam nga xam ne kon bu ne woon ci ab xaal bu ne woon ci sikkar man laa fàttali ko foofa loolu dong la kat waaye du du ne nag maanaa ci hadiya lu ñuy jënd la da da nga ko joxee ngir am nangam sëñ bi diggu ko kenn ñëwul kenn jox ma dara soo ko joxee dara neex soo soo ko joxut yaa xam kon sa sa wuuf moomu da nga gis nag ci gone yi tey yi ñoo xam ne dañuy jël maraxib tey maraxib jàng rek jàng jàng jàng ba mujj sax sax for duuduñu for doon nit te damay wax nag lépp lu lu la tee doon nit mën naa am doo ca jariñu te doo ca jariñe kon kon kon daa mel ne kon li lay taxa doon nit moom lu man di doon day mel ne moo lay jariñ mooy tax nga mën caa jariñe maanaam malaaxib si abi bu bakke ilimaan bakki alhamdulilah am na koo xamante ne laaj na ko ne ko xasida yi maanaam lu mel ne muxaddamatul xidma ndax dañuy wax naan maanaa daal mën naan nëxal am xel ak yooyu mën mën na ko sëñ bi bindul lu luy lore waaye ca waaja la waaja na mel yow yow sa puissance sa ruuxaaniya dëgërul diisul ba attan loola waaye nag maanaa ca tasawuf soo daa jëf jëfandikoo xasida gi it dañ la daa digal sëriñ ba moo la jàngal maraxib ab diir sëñ Saaliw daana ko def ca calkoom ne jàngale nangam ci xaside yi asmaa ahli badrin ngay jàng ko ay fan mu koy xëy na déet ndax nangam ak nangam ak nangam nga xamante ne ordonnance la saa suñu la ko joxee médecin bi mi ngi lay seet di la xool saa bu bu gisee ne dose bi ëpp na wala wàññiku na yokkal wàññil loola mooy tasawuf waaye wi wi wi rek sama daaxeeb di jàng rek damay wax ne gone gi go- gone gi moo am la ma sama mu mu mu waxoon ne ma jaamu yàlla gone mooy bañ a mooy yàlla ci juróom ñaari cërëm yi te lu lu mu tolloole ci ci farata yi moom mu ne ja tawxiid je kon na ko wéral julli noonu asaka mën naa dikkagul koor ko koor ci asaka dikkagul da makka ñëwagul kon moom li mu tollool su fexee ba du mooy yàlla ci juróom-ñaari cërëm yi mën naa xorxoral soo bëggee xorxor ci xorol dong maanaam luy bëgg xew suba ci nga xam ko ndeyam am na njëriñ soo ko bëggee xam moom jubal ko jubal rek jub ko ci soo jubee sa xol bi sedd ko ci maanaam réseau bu mag ba sa sa xol ma mën na caa tànge soo rek la waaye nag jërul jàng mën a xet yu bari lool nga xamante ne day day mujj duutoo mën a jaxasoog nit ñi maa ngi dégg waa joo xam ne day jàng maraaxib ci buntu bi diggam bu di dikkee di ko laaj ca marchandise moom mu ne ko jë duggal jël lu la neex xam nga ko comme suñ bi yaakaar naa bitig ba bu yàggee boo yeexee dana dana ko tëj kon li gën mooy nite maanaam gone yi da nga dee gi sax gone yi léegi ñoom it ña ngay wut ay tur yàlla waaw ma ne gone goo xamante ne set na wëcc mës te mooy yàlla tur yàlla yooyu lu mu ko jëriñ waaw maanaam ki nga xamante ne musta mooy yàlla tur yàlla yooyu lu lu mu ko jëriñ ah ginnaaw tur yàlla yi moom li mu doon jëriñ mooy raxas te yow da da ngaa set ah sëñ bi kon lu lu lu mu jëriñati xanaa kay li nga xamante ne kay moo am njëriñ ci gone gi mooy dem liggéey jox ay waajuram ñu dunde akub sëriñam maanaam li war benn waay nee na daa am xale bu bu ñëw ci genn kilifa ne ko man de da- damaa soxla xóotul xulóob mu ne ko ko mu ne ko yow de xóotul ab daan nga gën a soxla xóotu xulóob xóotu xulóob li abi talib bi lil makki yi téere boobu boo sax bokk ci téere mag ña gone di di di ko wax kilifa fa nga ne ko yow de xóotul ab daan nga gën a soxla maanaam texee loo dunde ah sëñ bi yow moom yow sa bàyyi kay soo ko wacce ci kër ga dem wuti xu xuutul xulóob mbaa kontraañ te te te te te te nga wutal ab reer soo dee am na la añ loola moo gën ci yow wut xuutul xulóob loola ci xew na lool ci gone yi nga xamante ne ñàkk xam tasawuf ña- ñàkk bugg leen ñàkk leer tax na ba ñu ñooy njaxase bi ndax da nga gis sax ne gone yuy sax xamewuñ sax tur yàlla ak lasaraan gaa yu bari ña nga ca cërëb al imaamul buuni bi samsul maarif kubra ak ak man fa usul usul usulul xikma moom la ñuy jël di ko xool rek di bind xatim yaag yooya te loola du turu yàlla loola la saar dong la la saar nag nee naa seg la bu am bu amul xaalis la saar seg la bu amul xaalis soo ci dee dund ba dem alaxira doo ba fekk dara yaakaar naa moom sunu mag ñi ñu ñu bari loolu la ñu yoroon lasraar waaye amuñu lañ de si donc layam couleur bu benn waaye dóor ko takk nit mu jox la xaalisam du dara de moom si donc layam amuñu lañ wa ndax dañuy wax ne lasraar ci mulku layam mulku malakoot moom dem fa waaw tur yàlla nag moo jëm malakoot jëm jëbaroot waaye ci waaye lasraar moom si donc layam amuñu lañ ay pexe rek la rawatina nag sulmaaniyaat yi turi jinne yi nga xam ne moom maanaam ak tiifar dong la ak tiifar ke ci ci gàpp benn waaye damaa masa ku baax damaa yóbbu ci ko mu yaakaar ne ku xam dara la ci tur yàlla ma dem mu tudd ma écriva nangam nangam wax ay waxam daal di dina ma na nga jël maymuun maymuun tur woo noonu ci lim sàngam di ko wér de boo ko defee day nangam ma nangam bañ ngeen ne ma ne ne ne sëñ ba ah sa waa ji de xam naa ne ku baax la waaye xam naa ne li ma jox da da ko xamut may mun day mooy bëkk ne ko juróom-ñeenti doomi iblis seytaane doomu jigéen yi juróom-ñeenti lañ bëkk ne gëm ba mooy may mun soo wérdee lii ma mo- li ma wax nii soo ko defee dana dana la feeñu wat a- andi jigéen ña ñe la njaaloo ak ñoom ku la ci neex soo ko defee day loolu loo bëgg am ko moo tax kon woo baax da wóor xam-xam bi ci la yëf yi leer la saar moom lu wóor a ji la lu wóor a ji dëgg la moom ma ndax ndax da danga gis ku baax am na waaju ju ñëw fi man ne ma kilifa sàngam kat kooka nag ndaw la bërëxuut la la bërëxuut la dafa andi mooy bërëxuut wi rek ne ma kat daa am kilifa gu- kilifa gu gu maa koo jox ne ne ko te ko jàng baax na lool ma ne ko ma ne ko ah maanaa day wóorut de wóorut de bërëxuut de moom wóorut maanaa ay yëf la xam nga rek xam nga xasida guñu guñ naa la ji ne ko defar ak ay yëf la yoo xamante ne maanaa du tur yàlla lesraar la yooyu nag moom ci rek ci ci tasawuf yooyu moo ci nëx lool nga xamante ne amaan na sax leneen mooy jigéen ñi nga xam ne da- dañu da- dañuy dem di jëbbulu ci góor loolu loolu loolu kay am na sëñ Tuubaa jigéen ñi daanañ jëbbulu ci ci moom waaye nag wo woo baax dawoo ja jigéen ji na xam ne sëriñam boobee ginnaaw tëkku ko moom la xaraam ci moom moo xale bu góor ba ca mbedd man ñooyam ci moom maanaam da- dafa am lu dagan ci moom am lu xaraam ci ci moom te loola am na ci ñu mbooloo yoo xam ne jigéen ña ña ngi ca ne suq maanaam jaxasoo ga day bari lool ñu yaakaar ne ñu ngi ciy dara te sa kër ñëwu ñu ci ci dara yoo am solo la mas na maa gis be be- benn soxna aw waxtaan wu ci ci wuñ doon def maa keneen ko seen soxna daal di ne man day bàyyi faa lu maam jaara laa ba tax sax na mënumaa yor sama ma kër ma ne ko so- ma ne ko soxna si de bu dee ba bàyyi faalu maam jaara kon da ngay yor sa kër maam jaara daa yoroon këram moom maanaam ba- bàyyi faalu maam maam jaara day yor këram xam nga xam nga loolu ña- ñàkk digg la topp day rek jigéen ñi topp day rek di di wër rek di wër sa kër doo doo fa def dara yaakaar ne da ngay wu- wu- ci wut yàlla ak seen bi wutoo dara wala la ngay wut kon da da ngaa xamul yoon wa lu am solo la da- da- da- maanaam da nga gisaat leen jigéen ñi da- danaa ko koy wax day de bu bu ñuy def guddi jigéen ñaa ne fa rek jaxasoo te dara baaxu ca sëy mat laa min min min jóob rab yi ay rab dañuy def ay jàng yu ñuy wax jàngi rab yi njëreem ñu di ko laaj ko ne kon de de dañ see bëgg a def ay jàng mu ne mbaa jigéen ak góor du- du- duñ fa defee ñu ne ko akay mu ne kon su ngeen woo yàlla du wuyu du wuyu xam nga xam nga loolu mooy woo baax dëwuyee maanaam li da- dafa am ay sàrt yoo xam ne yu- yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo ko teg ni lii baax lii bon kenn mënu ci dara kenn ku ko mën a soppi amut ndax ab yonent moom jeex na du du ñëwati alxuraan ji rek a fi fii ne ba ëllëg kon moom li li xaraam jëmb yonent bi alayhi salaatu wa salaam ba mu nekkee ca façon wa alxaswaan ca ca Arafa di tàggatoog jullit ñi mooy leen li xaraam tey jii ba bis bañ ciy taxaw araam dong lay doon li dagan tey ba bis bañ ci di taxaw dagan dong lay doon loola loola yéen ba mi ngi ñu leeral ko ko nekkat lee ci andi moom mën mën a tuta soppi ko kon nag tasawuf ko daal ci ci ci tënk kon moom la la la ci la Sëñ Tuubaa ci waxoon ne anta muridun su ma fee xëyaada fi nem turi seen pant mu muridu maanaam koo xam ne da ngaa nëmm dara lu ma yàlla yow day kon ab suufiyanke nga xam nga xam nga murid ji fii du firi man ak jiw murid ji mooy ku ku nam mu mu yàlla Sëñ Tuubaa xamut tariqa xamu ko Sëñ Tuubaa li mu xam mooy nee na man may xalifatu yi yi yi yi jënd bi ba daa jënd salaam ci ci ci kaw suuf man may réseau bu mag bi ku bëgg a branché wu ñëwal ci man waaye xamut tarixa moom xamut ñii mooy ay dongam xamut dara li mu xam mooy ku ko nangul foo ko nangule rek ab dongam nga kuy def ndigalam foo ko defee rek ab dongam nga ba ko tubaab bi laajee ne ko liggéey woote lu lu mu doon mu ne ko mooy liimaan lislaam lisaan mu ne ko tarixa bi fan fan la jógee mu ne ko béykat bi daay saa tuuti wasalaam demee Madina ba tey waaye moom amul mu ne ko nag ñi gën a siiw ci ñi ñi ko yeesal ci ci gox bi mooy Cheikh Abdoul Khadiari Cheikh Abdoul Hasan Sasali Cheikh Ahmad Tijaan Chérif loolu rek la waaye maanaam amul différence bu bu dox ci diggante li ñaan Tijaan Xaadir muy déet loolu lépp benn la loolu lépp tasawuf du ci ci ci ci rek la loolu lépp mooy dundu yàlla rek la loolu lépp mooy dundu ci koy cente bi da cay satu ba salaam xam naa kon ci tënk ñu ñu bàyyi yi kon jumbul dana am kon ay laaj laaj yoo xamante ne bu dee yu ñu xam la ñu ñu ñu tontu bu ñu bu ñu xamatul ne xamuñu ko kon bismillah.
jërëjëf jërëjëf ñoom ci sëñ Diallo yi ñoo tàkk